Sunugal 24 ñu wax ci euh, beneen musique sax la ñuy des ba léegi mais de manière générale naka nga gisee euh, musique sénégalaise bi jamono bi musique sénégalaise bi euh, mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi dox fii ci Sénégal ah, ci benn côté mais bon ci benn côté peut-être ni que euh, yenn yenn manifestation yi euh, yi nga xam peut-être ni que euh, buñ la ci invité nga gis ci sa bopp mën naa dox ci sa boor mais musique sénégalaise tey boo seetee plan international bi taxu ko dox trop parce que yeneen i réew ñu ngi fi tey lu mel ni euh, euh, même sous région bi ah, ay ñoom Mali Nigéria ak yu mel noonu seen i artistes ñu ngi produire partout dans le monde donc mais ñun jafe na ci nga gis ko euh, mais am na nag peut-être ñeen am si ay exception nga xam te ñoo xam peut-être ay daara ji ak ak ak ak consort Youssou Ndour Baaba ak yooyu mais bariwul mënoon naa gën a dollee ko parce que am nañ place ci musique bi. Euh, beneen euh, phénomène aussi dañ ko gis ci musique sénégalaise mooy que ni euh, côté habillement musiciens yi dañu commencé di sol yoo xam ne si nii société bi dañ koy dénoncé ñuy te wax li ñu woowee ay tenues efféminées di yére yoo xam ne presque jigéen moo koy sol yow en tant que artiste nga nekk si milieu bi nekk jeune aussi bokk ci génération boobu nan nga koy nan ngay dundee loolu wala nan nga koy gisee. bon man li may wax mooy mm, ku ne xam na ni yére jigéen góor du ko sol mësumaa gis ma sol yu mel noonu. te it du ko sol du ma ko conseillé it nit di ko sol ah, xëy na kii sol yére mu nduru ak yére jigéen duma sax yére jigéen waaye mu nduru ak yére jigéen peut-être moom moo xam lu tax mu sol ko mais ku ne xam na ne yére góor góor a koy sol yére jigéen jigéen a koy sol. Mhm. seen milieu bi aussi bari na góor jigéen trop euh, bi ci mujj. Euh, Wally sekk phénomène Wally Seck jaar na fi avec son fameux t-shirt euh, après ñu jóge ci loolu dal ci euh, Ouzin Keita bi mu fi doon def euh, anniversaire am aussi CICES moom tamit mu sol fi loo xam ne si nii kenn xamul lan la donc yow est-ce que loolu du la du la du la def dara en tant qu'artiste. waaw xam nga man ku laal artiste rek ma siy laal parce que du ma fekkee fu ñu contrer artiste ma ci ànd mais artiste aussi bu mu mën a nekk ci àdduna na xool comportement bu mu mën a nekk ah. waaw moo xam ki soog a ñëw moo xam ku fi yàgg. ok côté yére yi nag duma ci bëgg a sori parce que euh, comme li wax sànq rek ku ne yaa xam euh, li ñu naan li tubaab naan les goûts et les couleurs ne pas donc loolu la ko mais quand même euh, ñun artiste en tant que artiste ku nekk rek na xool lu mu war a sol rek ba boo génnee du am benn coow quoi. après Pentola wax nga ko sa biir ay wax nga ni dootoo fay joué ci ci sa àdduna ci li des ci sa àdduna dootoo fay joué donc ban boîte nga jàpp ne wala moom ngay xalaat ni foofu nga war a mën a dem joué foofu li nga xamante ni lool nga bëgg. boîte saa ngi na gàdd ci réew mi tey du ma cité boîte yi fi nekk yëpp mais képp dinaa la par exemple man. damay saa saa su ma bëggee jouer lu mel ni Saaraba dama fay dem jouer ji yeneen ak yeneen ah, mun naa sax les euh, kër gi teraanga euh, euh, les gaynde ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ay faayif ak yu mel noonu xam nga ay baaramundi pourquoi pas baaramundi ak yeneen ak yeneen donc ñun ay artistes lañu fu ñu am contrat ak nit ñi dañu fay tëgg jouer yaa ngi dégg mais quand même. respect bu amulee ak boîte bu mu mën a nekk ak ku ko mën a moom ak ku ko mën a gérer boo amul respect ak ñi fay tëgg am nañu droit ñun bañ faa tëggati dèjà man dama doon dimbali Pentola parce que Pentola moom daanaka gëjoon nañu koo dégg déggoo ma wax de euh, Keba Seck li mu dugal Pentola artiste di ko dugal ci àddina Pentola yaa ngi dégg bu demee ba Pentola taxaw bu demee ba Keba Seck taxaw déclaré devant tout le monde na bàyyi naa Pentola devant tout le monde biir Pentola la ko waxee nga war a xam ne yaa problème te Keba Seck bokk na ci ñi gën a rafet xol ci artistes yu nekk ci àddina barki salaatul fatiha Euh, yaa ngi xool yeneen euh, boîte yoo xam ne mën nga fa mën tëgg mais lan la la Pentola jàngal wala euh, lan nga xam ne si ni tey soo demee ci beneen boîte doo ko nangu comme ba li la dal Pentola dal la. lii bu ma daloon ci beneen boîte it ma bafa ah parce que maa ngi koy wax keroog soirée yoru sama dépense ndax kuy tëgg ay weer ba weer wala ñaari weer ba ñaari weer kooku yor sa dépense sama caabi oto ngi nii ma sama essence bi may def nii du soirée moo ko may. yaa ngi dégg des fois da koy tëgg parce que da koy tëgg pour pour satisfaire say fans tëgg avec plaisir ak say nit mais quand même du du euh, boobu xaalis nga fa yaakaar a vraiment parce que ku ne xam na ne soirée yi léegi bu fekkee waxante dëgg rek yi ciy dox bareetul waaw dëgg neexul. Euh, am ngeen am fi benn euh, structure boo xam ne si dañ koy wax SODAV mu nekkal fi artistes yi ndax yow gis nga si sa bopp. SODAV comme ni ñu koy waxee rek mënaguma ci wax wow na wala tooy na parce que demaguma ci réunion yi pour wax ci. man bees daya laa fi fekkoon sodaaf nag maa ngi jéem a xool après naka laay jéemee euh, waxtaanee ak ñoom xooli liggéey beeg yooyu quoi xam koo fi nekkal kii avancé musique sénégalaise ak ku mën a nekk ku ko doxal rek yow laa àndal. bees daya moom la ñu changé def ko sodaaf c'est la c'est la même chose puisque euh, tur bi rek la ñu euh, peut-être ak ki fa nekkoon mais yow bees daya da nga doon jot foofu noonu sa ay nu mu ti xamu na laa ko waxee droit d'auteur doon nga ko jot répartition bi dama ko doon jot. BSDA ba tey damay jot xaalis foofu ba nii may wax ak yow fi ma toog nii damay jot xaalis bi ma jotee xaalis BSDA tax ko yàgg nii may wax ak yow nii. donc bon SODAV mooy mooy la wax rek xam nga man bi ñu waxee affaire da nga ko contrôlé contrôlé ko ma ne contre ma BSDA contre ma SODAV waaye dama ni SODAV duggaguma fa parce que man bi bi ñoom maam góor def seen seen euh, marché yeeg seen conférence de presse yeeg yooyu. mais yow artiste nga da ngay produire donc war nga mën dem xam li xew foofu noonu. man problème yooyu bu muy am mu ma fekk Europe may def tournée. bu ma ñibbisee laa dégg problème yooyu ay gars yi conférence de presse bi les artistes nangam yaa ngi dégg mënu ci woon wax parce que xaw ma woon bit bi ci biir yaa ngi dégg mais dama ne demaguma ba tey Sodav pour xam lan moo fa nekk mais quand dinaa fa dem xool ji bu fekkee nekk lu musique lu jëmal musique sénégalaise la ma ànd ci bu dee lu jë lu jëmal musique sénégalaise lu ma gisul sama bopp mu bañ ci ànd je pense que c'est ça contre ma kenn ànduma kenn l'essentiel na ma fay te ba tey mu ngi fay. d' accord euh, li ñu amoon ci waxtu presque jeex na peut être euh, question bu mujj euh, lan mooy say projet instant bii nii ci musique. maa ngi waajalaat benn duo bu extraordinaire ak benn artiste duma ko wax. fii ci Sénégal la affaire bu nar a neex boo xamante ni bu génnee ñëpp dinañu kontaan ci loolu beneen chose mooy maa ngi préparé waat suma anniversaire encore Sorano encore Sorano waaw parce que. Euh, liñ naan li olof naan li nga jàppoon ba mel ni bu ko bàyyi jig na la te foofu jig na ma maa koy waajalaat incha allah bi alors de la fin ñu yëkkati. le de la fin maa leen di siyaar ak fi réew mi toll nii naan leen euh, euh, kontaan naa ci yéen ndax des fois daf ñu neex ngeen jël ñu ñu wax suñuy xalaat ak yu mel noonu noonu que gindiwaat nit ñi tuuti ñu xam ko balaa ñuy teg ay fautif ak yooyu mel noonu ko donc euh, di leen remercier baax a baax a baax naan leen yàlla na jàmm yàgg mu fekkee wax naa fi nag lu dépassé moo ngi jégalu baax a baax a baax su may fan sa ak yéeg ñëpp nga xam ne aussi ñoo nekk ci réew mi di ñu seetaan ak bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen kontaan na leen ak fii réew mi toll nii sunu gaal 24 moo fi ne. Demba Guissé sunu gaal 24 mi ngi lay jaajëfal. sunu gaal 24